Moustapha Diouf Lambaye quatrième jour sëñ bi masul tardé campagne tamit euh, depuis ñu commencé ba léegi ñu ak moom ñoo ko ànd euh, moom Serigne Moustapha Diouf Lambaye dañ koy bàyyi rek mu jox ñu li nga xam ne moom la jot a jàngat euh, ndax ñu ngi koy déglu léegi ci Babacar Sarr mi ngi koy wax naan dëkk yi ñu a jaar yëpp amul benn boo xam ne gis nañ fa école gisuñu ko li nga xam ne moom mooy tali gisuñu ko li nga xam ne moom mooy hôpital ay hôpitaux ay case de santé sax dañuy am problème yooyu ñu ngi ci quatrième jour de campagne fii ci diwaanu Bawol ban réaction la. waaw xanaa di kontaan rek parce que euh, lii moo war a am euh, bu fekkee ne euh, da nga nekk cim réew da nga war a njëkk fii ñi nga xam ne ñoo gën a faible xam seen i jafe-jafe mais aussi tamit ñu yor programme bu neex a santé ci dëkku yu xaw a sori ndax Sénégal moom. Euh, état yi fi mas jaar dañu bàyyiwul xel euh, kaw gi waaye comme ñun ca kaw ga lañ dëkk euh, bi ma bi ñu defee benn documentaire wana kër Jomaay nga dugg gis sareet bi ñu takk ko ci ci garab gi baay bi toog na ci kii yoru kurusam yaay ji ne di wala ka kii foof ak mooñ ak yu ni demee man sama xol dafa sedd. purement sénégalais waaw waaw purement sénégalais cent pour cent. amoon na lu ko soppi nag ndax xam na li ñëpp xam am na salaire bu ko may du mën a wax cere muy wax caxe comme ñëpp mais boo demee da ngay gis ne moom dafa delloowaat boppam fa mu jóge woon dafa naturel kooku comprendre nga ñaareel bi muy yor benn programme am lu ci nekk fàllu lu doy waar ma bëgg ñëpp def ci euh, attention muy euh, césarienne césarienne léegi gratuite la te képp koo xam ne tey da nga toll foofu euh, ambulance médicalisée moo lay jël si bu la neexee amee doom ci biir yàlla tiifu moom jàkka ja rek lañ ko war a déggee ci léegi wala boo koy wax nga wax ko ci sa teyu bakkan mais dëkk àll boo romb da ngay dégg yàlla tiifu yàlla tiifu nga ne lan la ñu ne day mat parce que boole wuñ leen ci programme bi jomaay nag bu dikkee ne képp koo xam ne da ngay mat wala ngay sasaar yéen doo ci dara ba pare ñu indil euh, kii nu mu tuddati ambulance médicalisée vraiment loolu ñëw fii ci kaw gi di ko fi wax man tol naa foo xam ne du wax ku dul waxu Ousmane Sonko boo lëggee mën na laa fen loo lu leer laa la wax kon kuy wax na nga xam li ngay wax ak kilay lay wax loo ak ki bind li ngay wax kan la parce que ñëpp am wax ju neex mais Sonko day koo xam ne lu wax nar na ko man dafa am lu ma xam ci moom te xam naa ne du wax lu mu gëmul du wax lu mu narul comprendre nga baax li ma la damay wax ne sax euh, benn waay daf ne euh, daf ne ma sëñ bi euh, maanaam jomaay Sonko ko yónni rek doy na ma ne ko nag man ki ma doy Sonko yónni ko mooy ki mu bokkal parti koo xam ne euh, moom ñoo yaroondoo wala bokk li nekk ci moom euh, moo ko ci def mais xam nga tey Bart moo ko proposé woon waaye da koo xoolee comme boppam parce que yàlla dafa tere sax ñaaw njort nga an am lan teg nit di ko xool ne kii daf may war wala nangam euh, loolu yàlla daf ko tere moo tax ñi ko war ñëpp bokku ci kenn parti waaye lañ ko waree léegi mënatuñoo génn demaat ci sénégalais léegi lu muy jariñ benn waay na xam nga rek jamono ji nga xam ne ci ginnaaw tuuti ñu bëgg a euh, xaajale patriote yi ñi naan pro Jomaay ñi naan pro Sonko waxu dof yoo xam ne mën na leen Sonko maanaam Jomaay ci biir Sonko la jóge te son Jomaay du façon boobu parce que bu doon koy def yu mel noonu maanaam du egsi te Sonko du ko jiital aussi parce que Sonko du dof comprendre nga mais dama bëgg nga xam ne euh, mbaax gi ci Joma ci Sonko ak jom gi ci moom ak dëggu gi dafa nekk ci Jomaay neng leer seen suuf si loolu wane na ko fii la taxaw xeexal leen ba ñu jotaat seen suuf waaye man bu fekkee ne damaa dëkk ci àll bi xam wool xam bojj xam dem tool mais ay candidat ñëw tey ku mel ni Amadou Ba ñu war ko tëkkaleeg euh, ñu war ko tëkkaleeg euh, ku mel ni ba Bassirou Diomaye Faye Amadou Ba dëkku senegalam am leerut même bu fekkee xaw naa leer ay waajuram yàgg nañ fa tamit moom parcelle googu la ay waajuram nekkoon yor fay bitig di jaay ci li leer boo ko indiwoon ab illeer ne ko lii lan la ba ba ila ajil musaman du la ko wax comprendre kon nit ñi nañu xam seen bopp xam li ñu bëgg ñëpp a war a xeex waaye yéen ñii ci kaw gi ak man mii dëkk Lambaye ku ci gis euh, programme mu Diomaye Faye waroo xaar ñun ñi ñëw di la campagne yow yaa war a takk sab sareet yow da ñun jéem ñoo campagne ndax li ci nekk lépp dafa baax ci pour ñoom parce que kaw gi nag booy xool euh, yu bëree bari ñoom amuñu ci problème mais euh, yéen ñun ñii dëkk ci kaw gi te nekk Dakar wala nekk feneen tey heure bu ñu développé kaw gi ñun dañuy bàyyi Dakar ñëw parce que kenn ku nekk gis say mbokk gis say doom gis say nag di sàmm gis say xar gis sa nangam nangam te programme jomaay dafa am lum beral dix pour cent yum yum beral baykat yi te nañoo xam ne Sénégal Dakar kenn mënta wàññi location te defaroo mbay mi defar mbay mi nit ñi ñibbi ci seen dëkk yi mën a bay Dakar feex location yi mën a wàññeeku lii tax loolu am nag li sax man gisuma ko ci programme bi waaye na ci bokk nañu fexe jomaay fekk nañ ko muy nungu suuf di ko dollee seeni i borom di ci xeex mais bu jëlee réew mi nangu suuf yi yoroon ci tubaab yi ñii ñuy wax ay borom barke seen suuf yi ñu jëloon jaay doole baykat yi nañ ko delloo ba pare nit ki dafa war a am toolu noor am toolu nawet loolooy tax trois mois yi rek nga koy bay dafa trois mois boo koy liggéey mënu laa dundal at heure boo paree ci sa toolu nawet da war a dem ci sa toolu noor ba pare ñu samp ci dëkk yi ay industrie yoo xam ne boo paree mooy transformer liñ fiy bay nga xam ne dëkk bi duñ soxlaat dara loolu buñ ko defee ndakaaru kenn dugg ñëpp dañu ànd dellu seen dëkk ya ñàkkoon am jàmm bu ñu feebaree faju bëgg a dund ak ñàkk lu ñu lekk ak ñàkk mbay mu baax moo tax ñu jógee ci kaw gi dellu ca kii ba waaye jiw woo xam ne politicien lañ koy jox wala ñii ci rajo yi di fen di analyser di kàcc di tappale wala ñu jox ko maanaam yenn politiciens yi wala ay yenn kilifa yoo xam ne sax bayuñu waxuma nag kilifa yi bay ndax boo xoolee kilifa yi bay dëgg ñoom la ñu war a jox sax sommation bu doy parce que ñoo téye ñoo téye économie dëkk waaye am na ñoo xam ne ndakaaru lañ nekk ne ay sëriñ la du ñu bay te boo demee sawaay yow ñaari euh, nga dem xool bopp bopp nga xoolu kër ne ñaari andaaru gerte lañ koy jox gerte boo ci defee mbaxalu saalum mu normal sax day jeex lool nu ko nit mën a béyee am ci dara ubbi leen seen xel yi ñu taal seen xel yi jëli fi ñii fi nekk pour ngeen am dund gu baax ci yéen la des desul ci kenn jëli leen seen carte d'identité yi te taxaw yéen ñi du ma leen wax ngeen taxaw parce que li ne li ne ci man koor taw ci naaju yéen du soñu kenn mais comme rajo bi dañ koo taal am na ñeneen ñu may déglu man ñooñu laa wax waaye waxuma ak yéen li ci man moo ni ci yéen comprendre nga dëgg moom ki koy wax ak ki koy dégg rek ñoo ci yem. am na ay benn benn village yoo xam ne fii ci diwaanu Bawol ñoom du ñu euh, malgré du ñu am ay tali yu baax mais dañuy continuer ba tey di woteel Macky Sall te ñu ngi ci diwaanu euh, département ay benn benn. waaw am na ñoo xam ne bu ñu ubbi woon àjjana ni leen kay dugg dañuy lànk sawara la ñuy dugg mais ku gis Macky Sall li mu rey ci sénégalais yi yàq diine ji Macky Sall amul benn côté bu mu bàyyee ñëwul ba ci ku ne da ngay woteel bopp fas nanga am fulee daal bu ñuy bindu histoire réew mi yow taxawel ne wala loo ci laal ñu dóor la ba yow la nit da way am na waaye dama ne ñoo la gën a xam jafe-jafe yi ñekk mais nit bu bëggee al loo ci man Ousmane Sonko daa wax ba dem 100 mètres ñun ñu topp ci wax ba far màggat nit ñi nañ xam liñ bëgg lu mu Ousmane Sonko amul benn entre ci nekk ci kaso bii suñu jëmm suñ ñun la tëddal kaso ndax am na salaire boo xam ne may na ko mu dund lu ko neex wala egg na ci politique xam ne bu laajoon bis réew ma ci jox ko ko dem mais bu demee ba egg ci di tëdd kaso mais ñun la bëgg a dimbali mais nit nag boo bëggee ku la dimbali da ngay neex a dimbali léegi nii dafa am cinq personnes yu ma woo nekk marché Ocass naan lambaay ñun dañoo bëgg nga yónnee ñu oto ñu dem suñu dëkk ma ne ko barke sëñ Tuubaa ma ko ko def lu tax ma koy def boo yoree portable jaay ko man liggéeyaluma la saa bopp laay liggéey ak saa njaboot comprendre nga yow liggéeyalal sa bopp ak sa njaboot yow nooy na ci marché bi jaay yoru portable di julli naan yoru dama koo mere su ñëwoon wax ma ko damay xeex ak moom barke alxuraan dama koy saañu pare fii réew mi toll war ngaa taxaw góor gu ne léegi naan yónnee ma paas ma dem doo jaay sa portable paas dem Ousmane Sonko fi ñu fekk daa mel ni ñu tër ñu teg ñu paaka nar a dawal mu mu foqar ci paaka bi man Ousmane Sonko dañoo tàggale dañoo fi tarti nit ñi dafa mel ni comprendre ah xoolal fi mu jóge ak fi mu judd ñëw ñu ne ko Ibadu Rahman nga yow mënoo jëriñoo tarixa yi ah mu dem tay ba fa tarixa gën a amee doole muy Touba ñu dem bam am fa 30 turandoo am fa 129000 voix kon wax jooju ñu ko wax war nañoo xawate dem tëddi ba leen loolu ñun dañuy topp sëñ Touba téye ko topp Ousmane Sonko téye njëriñ li indi pour Sénégal ci yoon wi lan ci Sonko lan dëkk ñaari kenn du xañ parce que dañoo joxe suñu baat ñu rend ñu pour ñu ànd ak sëñ sa maam loolu la def maami keneen def ko suñ demee ba vingt et unième siècle Ousmane Sonko ñëw indi dëgg man ku dox sama diggante ak moom sa xaw laa jaar parce que dëgg-dëgg la li fi bi indi ak lii Ousmane Sonko dig la benn la li ñëpp bokk na ñëpp jot maanaam ku ku am problème jafe-jafe am am tribunal na yoon atta dëgg comprendre nga bax li ma la wax réew mi ñëpp ko bokk na na nan jox ñëpp cër mais lii ay valeur la yoo xam ne yonent bi moom la fi indi woon moom la fi Sëñ Tuubaa indi lii ko jeex Ousmane Sonko li muy wax di ko def man naa dugg ci diine mën naa dugg ci téere bu ne wasalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. moom nag day laaxatu day la day laaxatu di waaye na na nañu insister rek bu bu bu bu moom moo yor communication mais. day jiital gars rek topp ci ginnaaw l'infatigable Babacar Sarr dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi bu ko defee jox ñu moom tamit sentiment bi nga xam ne am na ko ci campagne yi depuis mu démarré ba léegi. waaw waa IYAT maa ngi leen di aussi internet bi euh, comme ni ngeen ko rek weeru koor lañ nekk affaire yi métti na tàng na mais gis nga campagne bi ñu ngi ko engagé. parce que ni see demee jom ak fulla ak fayda voilà donc tey ñu ngi ñëw ci état bu euh, Madina bi donc dem ñu ngi woon Missira tey Madina la donc ñu ngi ci village périphérie ak guñ biir Madina mais fu ñu jaar gis ngeen engouement bi defe naa ne monde rural bi defe naa ne ñoom ñoo ñu gën a xam sax projet bi ndeysaan ñoom ñoo ñu gën a bëgg Sonko ñoo ñu gën bëgg Diomaye donc lii satisfaction totale lañ ci am parce que mbir mi moom nekkul ville rek mais monde rural bi tamit daf cee bokk parce que ñoom seen ay doléance te liñ leen cërale ci biir bi dafa bëri ndax biir programme bi lañ ci cëralee wàllu mbay dafa bëri trop trop trop te ñoom mbéy lañ am donc mbéy moom yaakaar naa ne buñ ko suqalee rek monde rural bi dañ gis seen bopp ci projet bi te incha allah noonu lay demee. depuis boobu ba léegi euh, maa ngi koy laaj léegi euh, yaa ngi ci biir euh, convoi yi di dugg ci dëkk par dëkk village par village. ban euh, jàngat nga def ci euh, teeru bi nga xam ne nit yi ñu ngi leen koy accueillir ci. donc déjà déjà le fait que ñuy def dëkk par dëkk rek dafa am leen lu ñu gisaat. mooy que ne dëkk yi ak accès bi dafa difficile. gis nga fii pour nga gis tali problème la. fii pour nga gis poste de santé problème la. fii pour nga gis école problème la. fii bu nga gis sax électricité yenn saa problème la donc loolu ay jafe-jafe la yoo xam ne ñun ñuy dugg si biir dëkk yi ñu ngi koy gisaale tey doolay lancé loo xamante dañ ko porté waale incha allah nga xamante ne bés jamaay ñëwee ci réew bi ñu mën dëkk tel ak dëkk tel ak dëkk tel problème yi am parce que lii mooy wane Sénégal développé wul parce que chaque fois bu ñuy xool décoru ville yi tali yeeg école yeeg université yeeg autoroute yi ñu tega ne Sénégal loolu Sénégal lii la parce que kat boo xoolee population Sénégal soixante dix pour cent ci milieu rural yi lañ nekk soixante dix pour cent ñu ngi ci milieu rural yi comprendre nga boo jëlee fukki sénégalais juróom-ñaari ci ci monde rural bi la ñuy dund te monde rural bi xoolal tey nu mu mel boo xoolee nu mu mel mu lay wan ne Sénégal pays développé la donc je pense que ñii war a xam seen i doléance war koo jéem a satisfaire ci war a taxaw fi mu ne nii te incha allah ñu koy recensé te incha allah dina baax. campagne yi ci weeru koor gi nag na moom man gis nga instant yi deseetu ba dara métti na moom waaye yàlla baax na projet bi jar na ko projet bi jar na ko incha allah te dina baax incha allah. jërëjëf Babacar Sarr la woon eh, ni ma ko waxee léegi chargé communication donc dañuy continuer ba tey. dafa teg piliyaanam bu gars yi dóoree ba pare mu dem ànd ñoom dawal otom dem <laughs> campagne am loolu la quoi campagne am loolu leer yaa ngi ci naaju de dama ne ñoo yor stratégie ñun bopp ñun ñooy bopp yi ñooy bopp yi ñooy génne ñooy jox Birame ñu ñëw. ñun soxlawuñu nekk fii. Birame Diouf moo nekk nii adjoint coordinateur. moom nag engagement lañ ko xamee woon quoi ki nekk ci convent yi mais koor gi bi mu dë bi mu duggee ba léegi client am la yor bu lal teg dama koy bàyyi nag su ko defee mu mu layal boppam quoi mu plaidel boppam. waaw mais. asalaamaaleykum maa ngi leen di ziarewaat bu baax a baax a baax yéen sénégalais fii si biir réew mi ak ci biti réew di leen wax ne leen ñoo ngi ci campagne bi campagne bi nga xamante ne moom mooy fal le président Diomaye euh, te président Ousmane joxoñ ñu ko di moom nag daa am lu mu wax dafa ne ñun suñu piliyaan la ñuy kii waaye nag war nañoo yor suñu piliyaan war nañoo taxaw à l'écart parce que la yor ci campagne bi soxlawul ñu ñuy soxlawul ma riirandoo soxlawul ñuy dem ñu fu ne ñu dem taxaw fa ndax ñun li gën a stratégique lañ yor lii doxal campagne bi lañu yor waaw kon nag comme ñun ñooy définir itinéraire yi ñun ñun ñooy ñun joxe carburant yi ñun ñooy taxaw ñooy taxaw journaliste yi ba seen dem mën mën a ñoŋ jox leen ay oto dem loué ji oto yi ñoo jox leen nekk ci ginnaaw ku paan ñu lijjanti la kon soxla soxlawuñu di dugg ci biir mbooloo bi soxlawuñu di dem ci biir tànt yi soxlawuñu di toog ci chaise yi ñun lu ñu soxla mooy yor suñuy kaala yu baax yor suñu priaan yu baax dam taxaw lu ñu gis lu lu kii ñu ñëw taxaw ñu ñëw taxaw ko kon nag fàllu ngir baa ngi noonu. <laughs> léegi euh, ni mu ko waxee rek jàmbaar la moom vraiment jàmbaar la ci li nga xam ne moom mooy campagne bi vraiment dama koy tooñ nag. mais Birame yaa ngi ci convent yi depuis trois jours tey di quatrième jour nga nekk ci convent yi ànd ak euh, gars yi di dugg ci dëkk yi bari na dëkk yoo xam ne buñ fa duggee hmm. ay amul saxtali ay ran-ran la ay yoon yu metti dëkk yu amul courant euh, bi nga toppee ci convent bi di def euh, di di constater li nga xam ne moom moo xew ci village yi nga xam ne ñi ngi fay dem après ban jànga nga ci ah waaw sëñ Fallou jàngat bi ñu ci def de mooy jàngat bi ñëpp def ndax dëkk yu mel ni tey fu mu toll ni ñoo ngi Madina dëkk bu toll ni Madina nga xamante ne muy dëkk cosaan muy dëkk boo xam dëkk dëkk kilifa ndax suñu ne dëkk sëñ euh, Mbàkke Madina nekk ne dëkk sëñ Cheikh Bombali muy xalifaam di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko dëkk bi am potentiel bu mel nii muy dëkk bu mag ñun bu ñu demee si tali tali tiib bi ba ba dugg biir biir Madina ci rang-rang bu bu bu lañu la ñu daw dëkk boo xam bu peuplé électorat bu am électorat électorat bu mag xeetu dëkk yi ñu war leen mën a jàppale waxuma dara waaye xeetu màggal yi ñu fiy def ak cérémonie religieuse yi ñu fiy def rek waroon naa tax ñu gëstu dëkk bi rawatina nag muy dëkk boo xamante ne am na mbooloo bu bare bare bare bare nombre d'habitants yi jéggi na dayoo kon loolu moom lu ñuy déplorer lu lu métti la ci gisin démb noonu lañ jóge Misra la même chose da nga dugg ci dëkk yoo xamante ne du am du am goudron du am dara raaran sax daanaka dëkk yu bëri amuñu sax raaran bay am euh, bay am goudron kon loolu moom lu ñuy ñaawlu la loolu nag lu ñuy loo xamante ne nag ay doléance la yoo xamante ne bind nañ ko téye nañ ko ba nga xamante ne ki nga xamante ne moom la ñuy campagne mu président Bassirou Diomaye ànd ko président Ousmane Sonko bés ñu toogee loolu bokk na si doléance yi nga xamante ne ñun waa département de Mbacké dinañ leen ko soumettre dañ leen ko soumettre ak pas mal euh, de doléance aussi yoo xamante ne enregistré nañ ko waaw. campagne koor gi tamit euh, ñu ci bari jàppoon nañ ne euh, mën na am sooxe mais dafa mel ni mooy nekk ci biir campagne yi day mel ni nekkuñu ci biir koor tamit. waaw waaw loolu loolu li koy li ko gën a waral rek li ko waral rek mooy détermination bi te soo tuddee détermination wax bëgg soppeeku suñu réew soppeeku loolu rek a waral lii ndax tey weeru koor bi man ku ci mel ni man sama saal la ma doon fekk ma doon fekk ma sama biir nekk ma tëdd sangu waaw taal sama clim wala genre nam sama morom yu bëri noonu lañ doon def ñeneen ñi bàyyi nañ sax seeni liggéey ah, di ñëwaat ci caravane loolu yëpp benn baat um, moo ko und mooy changement bëgg mbir yëpp soppeeku bëgg dëkk bi soppeeku képp koo xamante ni si li nga nekk sa mbir yooyu mën a dox loolu daal moo waral coono yeeg ak lu mel ni koor gi ñu ci yëngatu yëngatu bu mel nii ndax xam na ne métti na rawatina fu mu doon température bi ñoo ngi ñoo ngi ci trente neuf degré instant bi trente neuf degré xam nga loolu métti na nga boole ko koor di ci wër di di ci wax di ci ba pare jëlaale sa sa sa sa bu bëri di ko ci def ndax koor su nekkee koor bi campagne yu koor bi frais day gën a yokk ndax jamono ji ñun lu ñuy frais rek jéggi na dayoo waaw ah. jërëjëf euh, Birame Diouf. asalaamaaleykum maa leen di nuyu di leen siyaare di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu di leen baalu àq ci koor gi di leen baal ñëpp àq. yàlla ñu ko yàlla fekkeloo ay déwén di déwén te daa xaren ah di wax ñun suñu xol sedd na bu ndax réew mi moom li fi nekk ku ne gis na ko nan tàyyi nan xaw nañoo dee yaakaar naa ne waaw yaakaar naa Sonko moom ku ñu ndax ñun moom sonn nan àll bi surtout àll bi nag moo raw sonn nan tàyyi nan bëgg nañoo bii nag Sonko moom moo ko moom ak feneen it foo moo ko moom waaw waaw